élection bi dañ ko dañ ko bipolariser ñu ne c'est le choix entre la continuité euh, et, et euh, la la rupture euh, lan nga mën a wax l'électeur c'était sénégalais l'électeur déedéet fi mu nekk bu nekkee noonu ko bëgg jàngate jàngatee hmm. parce que nous sommes dix-neuf candidats c'est c'est un choix entre la responsabilité et l'irresponsabilité c'est-à-dire mais proposition yi nga dégg bu nekkee da nga wax bipolarisation proposition yi nga dégg lan la c'est de la l'anarchisme proposition yu kuul ci ci dara la mooy nañu yàq réew nañu toxal capital nañu changer monnaie euh, non dama juum ci sama juum ci sama programme loolu da nga fi dégg da nga déggoo fi leneen c'est-à-dire que donc on a un candidat sérieux qui s'est préparé qui a une majorité robuste qui travaille et d'autres qui sont dans euh, qui qui qui sont des amateurs et qui veulent entraîner le pays dans l'anarchie et dans le chaos donc euh, sénégalais kay tànn bi foofu la nekk kon euh, da nga rafetal wax ji rek waaye loolu la. non dañ ne continuité ak rupture ñu ne. Euh, non jeunesse rupture destruction la attention c'est destruction et consolidation est-ce qu'il faut consolider. li fi nekk yokk ko améliorer ko gën ko yaatal gën ko gaawal ou est-ce qu'il faut raser tout ce qu'il y a ici et reprendre à zéro parce qu'il faut voir ce qu'il cache derrière rupture et ce que vous dites derrière continuité continuité c'est la consolidation on a des acquis fondamentaux am na lu fi am am na lu fi nekk lu commencé depuis Senghor même bien avant Abdou Diouf Macky Sall ñëw yokk ci lu am solo il faut consolider il faut aller plus loin il faut aller plus vite parce que c'est une demande très forte des population am ñu lay ne li fi am dara baaxul mooy il faut tout casser et reprendre mais le choix il est vite fait c'est au euh, euh, loolu parce que am na concept yoo xam ne tant que waxuñu le contenu bi euh, doo doo doo xam looy def ci derrière derrière ce concept il parle pas de rupture il parle de destruction mooy nañu tas lépp reprendre à zéro li fi am dara baaxu fi d'accord man loolu depp naa ne baaxul li fi am nañ ko téye lañ ci war a yokk ñu yokk ko ci lañu war a gën a dëgëral ñu dëgëral ko la war a taaral ñu taaral ko bu amee erreur ñu rectifier ko jàll ci leneen je pense que c'est qu'il faut faire mais ñoom continuité bi jàpp nañu ne yéen vous avez déjà fait vos preuves et que loolu moo joxe situation bi ñu toll nii ñoom rupture bi ñuy proposer dañuy proposer changement de paradigme dans nos relation avec euh, nos, partenaire partenaires euh, financiers euh, ak nos partenaires traditionnels euh, dañuy wax rupture dans la façon de définir la gouvernance du pays mais waxuñu ba tey li ñuy def de li nga wax yëpp léegi nii ba tey ji kenn mënu ko jox un contenu opérationnel kenn li nga wax nii yëpp ba pare ku ñu nee def ko doo xam nooy def dafa mel ni rek ku toog ne dama bëgg tabax kër bu ma defee étage bi yokk ci benn bi loolu du architecture ni àdduna di doxee tey ji ni muy doxee relation boo bëgg a soppi foog nga teg ko ci taabal ji xool ko bu baax a baax a baax bu nekkee relation commercial la walla relation économique entre réew ak réew wala entreprise bu nekk fii ak entreprise bu nekk bitim réew wala sax yow ak particulier fii ci biir Sénégal su ngeen jubawul tribunal ngeen jëm réew ak réew dañuy dem tribunal gis nga am na loo xam ne buñ ci duggee c'est de c'est c'est de l'amateurisme du demee noonu mënul nekk maintenant maa ngi yow ñi ngi liggéey. ni ñuy liggéey am na lu ma ci neexul ma dem ñu dem ba toog ma lii ñuy liggéey am na lu ma lu ma ci neexul waaye kat maa ngi yow d'accord nañ ni buñ ko waree soppi fii la ñuy jaar c'est ce qu'il faut faire ci contrat yëpp nag ci lépp nag noonu lañuy ñuy doxalee réew mais xëy rek toog fee xamoo sax li nekk ci biir contrat di wax je vais dénoncer je vais faire ceci bon euh, c'est vrai en période de campagne électorale on dit ce qu'on veut on dit ce qu'on pense euh, mais euh, c'est un débat boo xam ne mënuma ko soutenir ak yow parce que amul contenu opérationnel c'est-à-dire que boo ko waxee koo xam ni dafa exercer des responsabilités dafay xam ne yow mii li ngay wax euh, du waxu nit ku nit ku nit ku normal c'est pas am na loo xam ne du ma ne du du du les priorités du pays sont ailleurs tey jii qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'économie puisse tourner mieux euh, au mois d'avril au mois de de mai c'est ça d'abord la priorité maintenant loolu du tere réforme yi nga bëgg a def du tere changement yi nga bëgg a def nga teg ko xool ko euh, dem ci dem ci ndànk yi nga xam ni maîtriser woo ko yi nga xam ni maîtriser woo ko nga xam ci ban yoon ngay jaar pour mën ko def et non ne damay jël réew mi dañ ma may ma jàng ñaari at après mu des ñetti nga dugg ci campagne électorale c'est le pays qui va en pâtir je pense que c'est de ça qu'il parle